waaw li nga xam ne moom mooy xew-xew bi fi am tey wax dëgg yàlla amul kenn koo xamante ne mu ngi ci dëkk bi te amul lula metti ndax aw askan lépp loo xamante ne daf ko laal rek dafay nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla diis na ñëpp ndax comme ñun ñoo bokk réew mi ñoo bokk Sénégal te réew mi dañu wax ne réewum jàmm la réewum jàmm jàmm rek moom moo ca war te nag li nga xam ne moom mooy xew-xew bi nii dafa am lu ko jiitu jëkk lii xew tey waaye lii xew peuple di nga tolloog saw xeet foo xamante ne say njaboot am na foo xamante ne boo fa yeggee ñoom soo waxeek ñoom am na loo xam ne duñ ne déggaluñu la danañ la déggal bu baax a baax waaye dafa am lu ñu waxtaane woon li ñu mujjee waxtaane bañ na nañ teg lépp si suuf. waaw maanaam fii mu démarré waxtaan am na parce que lépp loo xamante ne lii war na ci affaire de parking bi. problème de gendarmerie bi la gendarmerie bi mu amee ñoom ñu xay benn jour après yóbbu seeni bagage ñu dem bi ñu demee nag ñu demande le maire ne ñoom actuellement li ñu bëgg mooy côté parking bi bi ñu waxee loogu nag ñu ne mën nañ leen fa defal euh, tabaarakallahu benn benn conteneur conteneur boo xamante ne en attendant dinañ ko fa teg buñ leen ko fa tegalee abri provisoire boo xamante ne dinañ leen mën a utal fañ nga xamante ne fa lañ leen a mën a yóbbul. Ngor dañoo am problème bu garaaw. foofu dañ fay organiser ay mariage ñu ngi fa bëgg a def lycée bëgg fa def CM gendarmerie bi fi ñu leen jox yaatu na nañ ko jël buñ ko mënul jël ñu génn dëkk bi abal ñu soxlawu ñu ñun ab gendarmerie am na leneen lu ñu gën a nekk priorité ay gendarmerie lu ñu gën soxla ñun bërëb boobu ngoro ko moom dañu ko may suñuy maam xam nañ ni mu demee Cheikh Tidiane moo ñu ko may biñ koy xëccoo ak moom moom daf na bu dee ngor daf ko soxla pour wàllu lycée wala lu jëm si dëkk bi mën na ko jox waa dëkk